mbok biñona mbok Casamance mbok Senegal. ñu ngi nuyu ñëpp di gërëm man Aïda mboy de buñu fi nekké rek japp na ni senegal la 1974 bi may sey si fi ci Ziguinchor le 9 juin Ben journal buñu wax Amina dafa bindoon fi du nord ndax waalo waalo la femme du sud ndax ñëw naa sëy sud loolu nag mooy senegaal loolu mooy àndandoo ñu ñëw tey nag ànd ak yéen di massawu sunu jàmbaar yi daanu di massawu seen waajur di leen jaale ñi nga xam ne ñoom lañ fi fekk ak ñi ñu àndandool ñëw di leen naw ci seen gëm yàlla di leen naw ci wóolu yàlla di leen naw ci xale yi li nga xam ne moom lañ doon xeex mooy li nga xam ni mooy yàgg nekk ci réew mi te metti leen te ñu jàppoon ni waroon nañoo génn ci seen réew métit lu ko naqarlu ko muy dëgëral kuréel yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi taxawal kuréel yi nga xam ni ñoo nekk ci réew mi te ñi fi wax wax nañ ko fexe ba suñu justice su réew kenn dootu ko utiliser contre kenn kenn dootu ko moom kenn dootu ko dara jawoo loolu lañ xale yi doon yaakaar ni suñu génnee loolu mën naa dañ xale yi yaakaar ni xeex yi nga xam ni seeni taaw ak seeni mag xeexoon nañ ko seeni maam loola warul la naax saay te waroon nañ cee taxaw xale yooyu nag kon niñ ko waxee fii duñ ñu gën a gore duñ ñu gën a gore parce que ñun ay gor lañu duñ ñu gën a gore te loolu moo indi suñu ànd bi gis nga seen doom ji moom la ñëpp di wër ñun ñëpp kenn ko ci dekk man assemblée laa xamante ak moom damaa def sama parti dem assemblée mu def partem dem assemblée waaye nag li gën a ëpp xam-xam mooy koo xam ni. bu guddee mu ni leen fii la ker gi yam bu naaj wi ne dàng kem gi yam foofu gis nga keroog bañ ne dañ koy jëli laa dem ca moom ni ko gëw liñ la wax d'accord ma ci liñ la wax xam naa fi nga jógee xam naa fi ñu la yare xam naa éducation bi nga subir liñ la wax defoo ko comploteur bi jógati na kon duñu nangu complot bi jàll loolu la ñu bañ loolu la xale yi bañ ba tey ñu daanu kon nag daanu nañ sur le champ l'honneur kon ñu ngi leen di sargal kon ñu gëna goré lolo looloo tax fii ci Bignona pacte bi Cheikh Tidiane jey wax ñun dañoo japp ne ab ribo la bu dind suñu deret ya jaadu won dinañ dind suñu deret takal ko ci garab gi jam suñu bop ci garab gi pour wane ni kenn du war ci li nga xamni mom lañu d'accord li ñu d'accord nak modi di kenn ku nekk wala ñu andando ak nu mu di di nga fexé ba réew mi nekk benn ba réew mi bokk xol ba rew mi andando ñu dëgëral dëgg jam jam di waxante lu baax dindi lepp luy en demb lepp luy xaar ma yàlla ci suñu digënté ñaarël ba te engagement la buñu jël moy lepp lo xam ne ci kàddu day yàq digënté di ko ñu tek ko ci diiné wala di ko tek ko ci ki fi la dëkk fee la dëkk ki bokku ak diw loola dinañ ko dindi dinañ ko dakk